salaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala sunu réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëm leen di saafara ngir réew mi suqali ko réew mi taxaw réew mi yegg ñun ñëpp fa ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam sunu borom borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñun dara manqué wuñ te dara jomb ñu lépp lu doomu aadama aajoo si kaw suuf ngir jëm kanam sunu borom def na ko fi géej dex ay déeg suuf yu na suuf su nangu koom yi ne ci biir suuf si koom yu ne ci biir ndox mi suñu borom defal ñu xéewal bi gën a mag mooy ay nit yu am xel xel rek koom la saa yu nit jëlee xelam daas ko nàmm ko bës ko sotti ko xelli ko nasal ko xel moom da koy jural yiw yoo xam ne njottam mu ne si wan a yegg sax Sénégal nag ñun am nañ xéewal yëpp waaye suñu réew mi ñun ba léegi béggaguñu si béggaguñu si dëkkuwaay dem ak a ñëw mbay napp sàmm béggaguñu si wàllum jàng ak jàngale wér yaram liggéey mbedd yi jikko yooyu yëpp tey neexuñu lan moo tax ak lan mooy saafara saa su ne dañuy am gan yoo xam dañu fiy dikk ngir loolu ñu indi si ay leeral tey ñu ngi si ànd ak Omar Ciss Omar Ciss moom artist la comédien la euh, di yëngu si wàllum théâtre bokk ci waa euh, théâtre national bu Daniel soraano ànd si tamit ak Ndiaga Gueye Ndiaga Gueye moom artiste la waaye moom si wàllu musique si lay yëngu Omar de nuyu de dal la ziar. yow it euh, Ndiaga di la nuyu la daal la bi Tounkara. aywa Omar yow euh, <clears throat> leeral ñu euh, artiste comédien mooy lan soo koy teggi. waaw artist comédien waaw bi ngay wax sànq da ne Sorano mais tey mën naa ne comédien la mais maanaam toogalu ma fi Sorano donc dama ñëw fii en tant que Omar Ciss comédien. donc euh, artiste comédien ñun niñ ko mën a waxee mooy maanaam boo waxee comé comédien tey jii boo koy wax ci olof ni ñi caada la ñuy wax waaw donc dañuy wax wàllu caada euh, comédien nekk nit koo xam ne dafay ñëw taxaw si kanamu ay nit di wane maanaam dafay nekk loo xam ne daf si tàggat boppam ba pare euh, ñëw ay nit taxaw mu wan leen ko yow da nga koo jàng. waaw foo ko jàngee. Euh, man maa ngi defee euh, théâtre école nationale des arts. fa nga fa nga génnee. waaw conservatoire. waaw fa nga génnee ban kañ nga génn yow foofu. donc man maa ngi fa dugg 90 euh, génn fa 96. léegi Sorano ja nga doon wax. ne toogaloo leen fa waaye yow da nga fay. waaw pensionnaire laa fa nag. waaw da nga yëngu waaw waaw foofu moom def naa fa fukki at ak ñaar. ba léegi yaa nga fa. ba fi may waxee yow nii maa nga fa. joué nga fa ay. joué naa fa def naa fa mise en scène aussi. léegi yow euh, artiste comédien. Mm-hmm. artiste comédien yi tey dañuy jooy ne ñoom dund aar bi dundul leen dundalul leen yow loolu dëgg la waaw dëgg la ndax euh, ñëpp a ngi koy dégg mm-hmm. ndax ñu ngi dem ci télé yi di ko wax fu nekk ne euh, l'art ne nourrit pas son homme maanaam <laughs> dundalul leen mm. mais loolu euh, je pense que aussi du ñëpp koy wax. yow mii mu ngi lay dundal. waaw man moom mu ngi may dundal parce que moom kese laay def defuma leneen lu dul théâtre. Sorano salarié nga fa. waaw salarié laa fa nag. weer wu ne di nga taalal loxo ñu teg. waaw weer wu nekk waaw. bon ñi ñi naan dundalu leen loolu amaana moom la ñu amul te amul ñu tamit ay production yoo ak ay prestation yoo xam ni dina tax ba ñoom ñu woomle. waaw xam nga loolu euh, Tunkara loolu dafay xaw a doy hmm. ndax dañ ne métier kenn du ko for. dëgg la waaw ndax ñu si bëri ñi toog fi tey boo leen laajee ndax théâtre bii ngeen di def jàng nañ ko dañ lay wax jànguñu ko donc nit ki nag euh, je pense que boo bëggee def dara loo xam ne da ko bëgg a def métier bés bu jot nga si dund di si tedd faw nga jàng ko. mais euh, Omar lu tax yéen ñii nga xam ni jàng ngeen ko yéen yaa ngeen nekk si ay position yoo xam ne plus ou moins officielle. nekk ay Sorano yooyu. lu tax yéen doo leen encadré xale yi di leen jàngal. Euh, dafay nekk loo xam ne tey jii euh, formation maanaam encadrement boobu ngay wax dafa am lu muy laaj ndax tey jii Omar Ciss mu ngi yor ay xale yoo xam ne mu ngi leen di former tey ñu bëri jaar nañ sama loxo ñu ngi def théâtre mm-hmm. donc euh, ñooñu ñoom ñoo bëgg def théâtre nga ñëw jàppale leen mais tey jii Omar mu mënul ñëw tey dem ne dafay def formation ndax li muy laaj yëpp Omar Ciss amu ko mm-hmm. est-ce que ñooñu aussi di taxaw di wax est-ce que bëgg nañu def formation mm-hmm. est-ce que pare nañu pour def formation mais Omar tey yow boo xoolee. bon ñuy def euh, téléfilm yi plutôt xam nga ñun dañ koy wax théâtre si suñu langage ni vulgaire waaw euh, courant mais euh, loolu dëggantaan du théâtre ay ay téléfilm la du théâtre waaw léegi yéen yooyu boo leen koy xool xool expression scénique yi xool seen xool day jeex non man moom lu si bëri duma ko xool mënatoo ko sa xool du ko doon naa koy xool nag ay jamono ndax souvent dina ma neex ndax dama nekk si si benn métier am ñeneen ñu koy def ni man ax nu ñu ko mënti defee maanaam ñu ngi koy def comme man donc dinaa leen xool xool ñii li ñuy def mooy lan daawoon nga leen xool waaw daanaa leen xool lu bëri sax waaw mais su ma leen daan xool aussi parce que man maay bëgg ñun bi ñu nekkee école dañ nañu loo leen gis xool leen di ngeen si gis loo xam ne di ngeen ko ne lii baax na dinaa ko def ba ilaa yawmi din waaye lii moom du ma ko mës a def suma àdduna <laughs> donc lépp am njàng la donc mais ñoom ñiy def loolu dafa nekkee ñoo xam ne dañu tudd seen bopp comédien hmm. nekk seen ay koñ yor troupe bala ñuy commencer sax répéter am na si ñoo xam ne jànguñu sax tey dañuy ñëw léegi ñooy bind seen scénario ñoom ñooy dem uti caméra kii caméra kenn xamul ndax jàng na ko wala jàng ko l'essentiel na na ñu dajale nit ñi def seen produit bu paree jar naam jarul bu ko waa koñ bi jëndee seen i mbokk ak ñooñu ñoo ko ñu si bari te jii soo leen laajee ndax lii ngeen di def ni ay at yéen a ngi siy noonu te ñoom ñëpp ñu ngi produire donc nit ki aussi soo def loo xam ne yow lii xam nga ne jëmul kanam. ndax ñoom ñëpp seeni cassette am na si ñoo xam ne dañ ne génne naa dix cassette hmm. mais ku génne dix cassette te mënoo si dund war nga xam ne kon yow yoon bii nga jël baaxul <laughs> ànd naa si li nga wax de ah. <laughs> donc te ñoom ñooy taxaw hmm. di kaas te tey koo si waxoon kaay de formation benn at rek du ko nangu ndax formation njàng dafa metti hmm. ndax di nga bàyyi lu bari mu romb la ndax soo duggee def six ans man euh, conservatoire maa ngi ko dugg quatre-vingt-dix def naa auditeur libre dama ñëw fekk ñu commencé ma ne non damay def auditeur libre ma suivre une année di ñëw di jóge Tëngéej di ñëw Dakar donc après mu continuer def cycle normal génn en 96 delluwaat si euh, ASC yi di jàppale di dugg foofu pour am expérience xool est-ce que man li ma doon def bi ma demee école ba ñëw est-ce que mën naa si apporter quelque chose. Hmm. donc man loolu c'était un défi personnel. Hmm. ma ne li ma jàng nii naa ko jéem a tari donc je suis retourné à Rufisque dem créer une troupe dugg si ASC yi commencé di répéter ak ñoom. di dem kon yow euh, à part Sorano da nga am troupe boo xam ne. moom yow yaa ko Cocubambe théâtre de Rufisque. Cocubambe théâtre yéen foofu tamit euh, da ngeen def ay prestations. mais foofu théâtre la sur euh, sur planche moom. sur waaw la ñuy def mais li ëpp si li ñuy def nag actuellement mooy le théâtre forum. théâtre forum mooy lan. waaw xam nga théâtre forum actuellement sax loolu moom wax si day baax ndax Sénégal ni presque ñëpp a koy def mooy xool mooy ñiy taxaw si kaw seen di waxandoo ñoom ñëpp boo ne théâtre mu yëg si kaw seen ñëpp waxandoo donc ñun Ted Forum dafa nekk un théâtre interactif boo xam ne euh, théâtre de sensibilisation la mhm. donc ça nous vient du Brésil ki ko doon def Augusto Boal moom moo ko initié donc boo xoolee si un théâtre engagé pour ne pas dire politique donc dafay dénoncer quoi dañ ne bon c'est le théâtre de l'opprimé maanaam si biir théâtre bi am na ku ñuy fitnaal am na kuy fitnaal maanaam des oppresseurs et des opprimés donc léegi c'est pour aider les gens eux-mêmes à briser leurs oppressions ndax souvent ñu bari ñu ngi leen di fitnaal te ñoom kese ñoo ko mën ñoo ko mën dindi seen bopp. Mm-hmm. donc ce théâtre là dafay ñëw pour jox leen ay yoon. Mm. donc c'est un théâtre boo xam ne tu viens tu poses une pièce anti-modèle ne lii maanaam c'est un théâtre qui provoque ñëw ne lii dama koy teg uniquement mais du li du li ñu soxla c'est pour provoquer le public pour ñoom ñu mën a réagir gis seen bopp ne pour proposer des scénarios de développement maanaam ah, lii kat d'accorduma si parce que y a un joker avec. Euh, la troupe euh, euh, animatrice donc Joker bi il est là avec son groupe et il présente la pièce le TER Forum se divise en trois parties tu joues une pièce anti-modèle et ensuite tu reviens et on fait la partie identification mooy il y a des bons et des mauvais donc maanaam des oppresseurs et des opprimés donc soo paree tu présentes le et maintenant ce qui est important dans le TER Forum mooy il y a ce qu'on appelle euh, la reprise séquentielle mooy soo defee la pièce anti-modèle tu amènes les acteurs on les identifie et c'est le public qui va le faire ñen ñoo kan moo baax ak kan moo bon kan moo doon def lu baax ak kan moo doon def lu bon ñu ne non kii la bon qui. loolu mooy interactivité bi daal. voilà léegi nag après on fera monter des spectateurs sur scène ñu remplacer ay acteurs pour proposer euh, des solutions. yéen am ngeen euh, da ngeen def ay prestations yu bëri tënkee rek ngeen di. non. waaw ñun moom presque on travaille avec tout le monde nag. waaw hmm. presque ministère est-ce que def ngeen tournée wër Sénégal wala. waaw bon loolu moom bi ñu koy def ci acte trois de la décentralisation la woon bon ñu sollicité ñu woon pour ñu ànd ak caravane bi. pour ah. jouer un sketch sur l'acte trois de la décentralisation. mos ngeen génn Sénégal. waaw mos nañ génn parce que mos nañ dem Burkina euh, festival international de terre pour le développement. Hmm. ak euh, Tchad aussi euh, festival afro-arabe. mais lu tax tey Sénégal amul yooyu ngay wax. Euh, Tchad dañuy def seen ay festival afro arabe Burkina dañuy def seen ay festival international lu tax ñun Sénégal tey amul dara loo xam ni dafay indi tey euh, focus boobu si ñun. waaw parce que euh, boo xoolee sax xaw na fee am. parce que yàlla festival national des arts et culture FESNAC. waaw donc mais boobu c' est bon est national donc si Sénégalais yi kese la yem si biir réew mi daal. Hmm. aussi y' avait un festival international de théâtre pour la paix. ma feu Makodou Mbengue moo ko géré woon donc mu ngi doon amee Blaise Senghor tous les deux ans. Et au départ, ça marchait très fort parce que amoon nañ vraiment des compagnies étrangères avec les compagnies locales ñoom ñi ñëw mais finalement dafa commencé di rencontre ay problèmes de financement. Mm-hmm. xam nga aussi souvent festival yi festival yu bëri loolu mooy tax du dox. ah oui waaw. art day soxla mécène de. waaw <laughs> day soxla mécène mais souvent aussi le problème mooy euh, ñi koy yor foofu la problème bi nekk parce que actuellement boo xoolee festival dëkk yi nga xam ne seen festival day dox boo xoolee dañuy jël des artistes mais y a mais c'est un artiste qui à la tête. ah mais de surtout nag management de l'art. tamit ah, am solo donc fii nag ñëpp dañuy bëgg defal lépp seen bopp. Ah, ñu xam ne lii kii moo ko war a def lii kii moo ko war a def lii kii boo xoolee souvent fii festival am na ay festival yu fi am de mais festival kenn nit la. waaye waaw euh, tey par exemple <laughs> xam nga loolu euh, dafa xaw a dafa xaw a compliqué parce que euh, boo ma tudd dem Ndiaga yow artiste musicien nga yow ban xeetu musique ngay def waaw man damay def musique variété lay def damay def jazz damay def euh, world music en général. Mm-hmm. afrobeat reggae soul music ak yooyu. bii sa production la. bii sama album bu bees la mu ngi soog a génn. ñaata album nga am. sama premier album moo nekk nii. jaar jaar neuf titres. oui. Mm. Mm-hmm. léegi euh, yow defoo mbalax. non mbalax maa ngi koy def. Hmm. à part parce que groupe Ceddo maa fa nekk depuis 2001 ba léegi maa fa joué guitare. Hmm. waaw ban xeetu guitare ngay def. guitare solo. solo ngay def mooy mooy guitare guitare bi waaw. Hmm. comme bi ñoom Jimi Mbaye di def ñoom Guillaume Magal yooyu. kan moo daax solo Sénégal. non loolu loolu kenn mënu koo xam. ah man mun naa xam. non c'est impossible. lu tax non parce que en tant que musicien. mun naa la wax loolu teg ko fu leer foo xam ne di nga mën a xam li may wax. Ah. ku dàq solo Sénégal kenn mënu koo génne ne la diw la. ah mais ne leen ko kay. Ah, njaga déedéet mu mu mu mu kenn. mun nañ xam nañ tey kan moo dàq solo si àdduna bi. déedéet munoo ko xam. ah mënoo ko xam. lu tax voilà lu tax mënuloo ko xam mooy aujourd'hui boo defoon compari comparaison si guitariste yi. pour dàq ah. solo moromam. Ah. mënuloo ko xam parce que dafa nekk loo xam ne lii euh, musique moo nekk loo xam ne question feeling la. maanaam nit ki dina am benn technique rapidité ak yooyu yëpp tout ce là nga déglu ko doo ko sentir yow. boo boo boo xoolee classement yi ñu def si àdduna bi si ñuy dàq guitare solo si àdduna. waaw Jimi Hendrix moo nekk si kaw. kan moo dàq solo Jimi Hendrix. non bari na du jeex. waxal kenn. non bari na bari na. waxal kenn non bëgguma lim tur bëgguma lim ay tur parce que. je ku daax solo Jimi Hendrix. xaaral ma wax la xam nga xam nga comp xam nga ñooñu c'est des monuments des gens yoo xam ne yii ñoom guitare ñoo ko révolutionné aujourd'hui rafetul nga ñëw di leen comparaître ak kenn. ah lu tax mais boo ko tegee. xam-xam la de. non xam-xam la. jaga tey boo ñëwee ne ma diw sàngam. waaw moo daax euh, guitare Jimi Hendrix nga indi ay firnde yu leer. ñu nangu ko mais tey Jimi Hendrix àdduna hmm. bi classement wu guitariste solo yëpp ñuy def si àdduna bi hmm. Jimi Hendrix mooy numéro un waaw non du numéro un moom c'est impossible Jimi Hendrix am na lu mat un million de guitaristes yu ko dàq guitare comme kat téeméeri yoon bari na mënoo ko lim bon le bàyyi ñu bàyyi boobu parce que yow nee nga mun ñu ko lim mais man je maintiens Jimi Hendrix moo dàq guitare solo si àdduna <laughs> beneen bi fii ah. Sénégal hmm. Lamine Faye moo fi dàq guitare solo Lamine Faye waaw il fait partie des meilleurs. ma ni c'est le meilleur. non il fait partie de meilleurs. wax ma ku gën a ku dàq guitare solo Lamine Faye. waaw xam nga guitare lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy lan moo tax mënoo ko comprendre ah maanaam benn guitariste day joué nii neex kii keneen ñëwut kii ne man kenn ni mu joué moom a dàqal. loolu yëpp c'est des considérations yoo xam ne. affaire du feeling la li nga wax. mais dama ni la. Hmm. lamin fay fii Sénégal. Hmm. moo fi daax guitare solo. yow su fekkee da nga ni am na keneen ku daax guitare solo nga wax ko. loolu débat bu mel noonu du si bëgg dugg. ah waaw que dafa nekk loo kon kon kon loolu man maa ko àndoo. waaw loolu yow yow si àdduna bi Jimi Hendrix la. Sénégal gii ñu nekk lamin fay la. <laughs> aywa bon après Lamine fay nag c'est vrai que nag. ñun dañu am tradition ay solistes yu yu yu euh, avant Jimi mbay bi ngay wax. Euh, badu Ndiaye. waaw était un surdoué. waay waay waay grand yooyu vraiment bu ñu xalamee nga nga bëgg daw. vieux mag euh, mag vraiment il est très très bon. grand Omar Sow vraiment ñooñu waa Star Band yeeg waa <laughs> Baobab yi vraiment grand yi mun guitare. yow Ndiaga nag. bon Ndiaga yow classé wuñ la si guitariste yi gën a ay Sénégal non xam nga man dama nekk koo ne maa ngi soog a génnee sama album bu njëkk. non mais même li ngay joué ak waa Ceddoog yooyu bon. waaw voilà nañ dégg ligne de solo yeeg mais bon. waaw non ah, mais xam nga loolu. loolu mënuloo fa mënuloo fa nattee nit mënuloo ko xam. Ah, maanaam nit nit nga xam ko. ah da koy fekk vraiment dans son terrain. pour nga mun ko xam parce que aujourd'hui ñi ma xam di ñëw di ma seetaan en live ak di déglu samay morceaux ñoom ñoo la mun a wax Ndiaga fu mu toll. Hmm. comprendre nga. jaga daal bon musique hmm. musique. par exemple ceddo man xam nga ëpp naa si biir ceddo xajuma ceddo. lu tax non xajuma fa la preuve looloo tax ma génn sax def album ak yow parce que li ma war a exprimer ak li ne ci man xajul foofu yi faut may chanteur yi ñu ñu ñu ñu ñu développer li ñu bëgg a ñoom. parce que man su ma naree dugal li ma li ma bëgg def day ëpp day day lekk musique bi. moo tax dama leen di mettre ñoom en évidence ñoom ñu feeñ. parce que hmm. boo xoolee sa damay wu sama jeu ak bon euh, c'est vrai que nag les les plus grands solistes au monde. Mhm. dafa am foo xam ne bu ñu fa bu ñu fa tollee. Mhm. ñoom dañuy bay ber seen euh, daara. Ah, euh, ñoom euh, lamin fay gis nga mujj na ber euh, daaraam Jimi mbay mi ngi nii tey. benn daaraam. Mhm. mais avant ñoom ñoom Marc Nofleur. ñoom Nofleur waaw dañuy dem tamit ba ber seen daar. même Hendrix dafa mujjoon ber daaraam. ah def def Hendrix ab ah. Hendrix moom ay ñoom Chet Atkins. ñoom ñëpp xam nga dañoo dañoo mujj ber vraiment di di am solo bon. lan nga bëggoon leeral Diaga. waa li ma bëggoon leeral mooy tout d'abord sama album bi jaar jaar. mu nekk album boo xam ne vraiment sonnoon naa ci trop mais alhamdulilah yàlla def na li ma si bëggoon. ñaata xaalis nga si investir. non j'ai mis des millions nag la wax exactement. ñaata lay jar album bi. album bi 5000 lay jar. mi ngi jar fu mu jar waaw wax dëgg. ñaata nga jaar ñaata nga kii ñaata exemplaire nga. exemplaire maa ngi defoon 750. premier temps. ñaata ñoo jar bon 500 yi jar na. nga 250 waaw. sure mais Ndiaga xam nga tamit ay album bu ñu koy wax ay waxu million la ñu war a wax. waaw waaw mais xam mais xam nga c'est facile c'est pas facile bopp moo tax. awma sponsor awma producteur yooyu quoi je me suis débrouillé tout seul saa yu ma réunir benn somme ma dem dugg studio au musicien yi ñu enregistré ma denc. ñan musicien nga joué. joué naa ak grand Ran Diagne. Mhm. moo joué piano yi. Ran xam nga c'est un c'est c'est l'un des meilleurs pianistes de jazz du Sénégal. ok moom mooy joué ak actuellement Fred Guissé. mais également moo nekkoon si groupe bu ñoom Cheikh Diane Tall yooyu. moo def piano. Christian Derneville saxophoniste moom moo def sax yi. Roger Ongolo moo def trompette. Lamine Diagne moo def basse. Euh, invité naa aussi Malick si beneen bassiste jazz Malick si benn morso musiciens yi bari nañu quoi. yow yow jazz yow ñi nga wax ñi ñëpp euh, jazz nañuy def. Euh, non non non non euh, par exemple dañuy def gars variété world music parce que Ran jazz man la mais day joué yeneen musique Malick si moom spécial si jazz la quoi depuis vingt ans jazz rek lay joué. Ah, donc. donc yow sa fond jazz la. non sama fond du jazz. dama am smooth jazz laay def man defuma jazz parce que smooth jazz style la boo xam ne maa ko. initié smooth jazz jazz la rek yow tamit. waaw smooth jazz jazz la mais yaa ko initié si àdduna. non initié maa ko indi Sénégal fii. ah waaw. Ah, waaw maa ko maa ko maa mais ñoom ñoom euh, kii euh, ñoom daa ñoom super jamono dañu doon def smooth jazz. super jamono waaw. non non ñoom standard yi lañu doon reprendre dama leen doon seetaan fi mu jazz xam naa leen. ñoom c' est des c' est des mais standard jazz yi lañ doon joué. non mais booy déglu par exemple am na morceau yoo xam ne ay maa bëgg sama yaay mais yooyu smooth jazz la. non maa bëgg sama yaay euh, waaw bon mun nañ ko ah, tuddee noonu quoi mun nañ mun nañ ko tuddee noonu ba tey mun nañ ko ah, tuddee noonu mais je veux dire smooth jazz ku ku ñëw am fitu taxaw ne loolu laay def man man loolu laay incarné yow loolu rek ngay maa ko def ñëw def fi album quatrième vidéo mu ngi daw si télé yi yëpp si ay si ay kiiwu smooth jazz waaw mais ce que mu ngi musique bi dundalu ma pour dire vrai. parce que dama am métier dama am yeneen activité yu may def lan mooy sa métier non damay def transit ak ay business à part quoi. transitaire nga. waaw waaw ah, transit day moom métier la. voilà ce qui fait que léegi musique Euh, passion la si yow passion la ci man. Hmm. passion la ci man xooluma ci xaalis quoi. waaw lu tax musiciens yi tey ñun aar aar bi kenn dund si ñii théâtre dund ñu ñii musique dund ñu ñii mais loolu jaga grave na de. oui non alors que aar moom euh, tey am na réew yoo xam boo demee nga industrie musicale wala industrie du théâtre xam nga ay ay ay France ay Amérique mais yooyu ay ay Suède. yooyu mm-hmm. mais waxuma la dundal mais ay nit dañ see yegg sa kaw a kaw. mais doy na waar bon <laughs> grand Omar. waaw lan mooy message bi yow. waaw euh, message bi moom euh, je pense que Kocc Barma Théâtre de Rufisque. Mhm. ki nga xam ne man maa ko euh, yor donc nekk na di préparer année c'est quinze ans parce que Kocc Barma ren am na quinze ans waaw donc dafay def maanaam anniversaire genre festival lay doon nag. kañ la une semaine quoi mois de mai. soobee yàlla donc euh, dafa bëgg maanaam comme dafa depuis 2005 ba 2016 mu ngi def euh, TED forum TED euh, intelligent donc léegi dafa bëgg expérience boobu mu am ci milieu bi parce que liggéey na si lu bëri expérience boobu la ñu bëgg a démultiplier daal jéem a xool nu ñu koy partager. Mm-hmm. parce que y aura des rencontres avec les partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal. Mm-hmm. que ñoom ñëpp ñu mën a ñëw avec les les les les compagnies aussi locales. pour ñu xool nan la ñuy euh, pendant une semaine et puis la formation aussi pendant une semaine. yëpp Tëngéej lay doon. waaw non Tëngéej. ak Maurice Gueye wala euh, waaw cercle Maurice Gueye mooy nekk peut-être euh, base bi mais. Euh, c'est tout le département quoi jusqu'à Toubab Dialaw ak dëkk yi nga xam ne ñu ngi nekk waaw ay yéen quoi parce que ñun xam nga foofu comme problème formation bi ngay wax ñun si occasion yi la ñuy profiter def ay formation pour ñoom ñu mën a suivre puis comme léegi aussi école des arts euh, tijjiwaat na. section des comédiens. xam naa ñi bëgg a former dinañ dem. mais ñoom Kader ak ñooñu dingeen ngeen liggéey di ngeen liggéey ñoom seen académie bi ñuy ubbi. bon académie bi man bon liggéeyuma si quoi. d'accord liggéeyu si. donc euh, xam nga carrière xamante ngeen gars yi bu waaw ndax ñoom ñoo topp si man ñoom Ibrahima dama génn après ñoom ñu soo génn quoi donc carrière 97 la génn avec les 7 courses donc euh, Ibrahima Mbaye Sopé waaw aussi c' un jeune frère ñoo bokk ah. dëkk Tëngéej et puis moom leen ziar ñoo vraiment aussi waaw suma ay suma ay lañ mais xam nga bon bëggoon naa wax benn affaire parce que xam nga théâtre forum bi may wax ni uh-huh. léegi ñu bari ñu ngi wax dañuy def maanaam li ñuy def du théâtre forum mais lañ ko tudd théâtre forum mooy sax yoo gisee télé ñëpp génnandoo même émission yi sax da ngay invité troupe ñoom ñi ñoo taxaw bu kii waxee kii tontu ñoom ñëpp ñu waxandoo. Hmm. donc ñu ne théâtre forum la c'est pas le théâtre forum théâtre boobu ñun ñu dem ba benn instant on nous sollicitait si yenn manifestation yi mais souvent tu as 10 minutes tu as 7 minutes et da nga war a jàll ay message donc ñu ne il faut trouver une autre formule donc formule boobu ñu trouvé woon nag ba taxaw di waxandoo hmm. ñun ñëpp léegi boo xoolee Sénégal ñëpp a ngi def souvent sax maa ngi dégg ay nit ne ñoom ñoo ko créé alors que ñun ñoo ko doon def ba ñoom ñu commencé di ko def donc ñu nag bi ñu koy def aussi amuluñ ko tur parce que xam naa ne théâtre forum moom la reprise séquentielle il faut mu am si te loolu amu si donc j'ai dit théâtre bi gars yi en tout cas ñu ngi koy def et ça marche très fort ndax on nous sollicite tout le temps mais il faut ñu jéem a xool nan lañ koy defalee tour commencé nag di si gëstu. très ba mu nekk théâtre intelligent. parce que xam-xam moom si lu mu amul rek soo moytuwul pour mu taxaw ba dem. voilà dafay euh, dafay dafay compliqué. bon mais keroog sa émission dafa am koo invité. waaw mu wax ne phase nationale théâtre mhm. ñoom ñoo ko njëkk a région de Dakar. waaw te bii mooy sixième fois mu dugg fi ndax man indi naa ko fi cinq fois. 97 80 avec Kaakalam de Rufisque 98 avec Kaakalam à Kaolack mu ñëwaat 2005 2006 avec Mengo de Rufisque et 2008 avec Jakaarlo de Rufisque. Hmm. waaw cinq fois. moom moom xam naa xam-xam boobu xam naa ñoom nag dégguñu ko wala yëguñu ko wala instant boobu ñoom yëngatuñu ci théâtre bi quoi. waaw Mohamed Ndiaye yow dégg nga loolu ah. <laughs> waaw donc euh, xam naa bu ko déggee ñoom dinañ xam li ma wax quoi. wala waa ONCAV bu ñu ko déggee tamit ñoom xam nañ loolu. quoi donc. Euh, Ndiaga yow message bi lan waaw message bi ma doon bëgg lancer mooy euh, vraiment sama affaire album bi. ci laa doon bëgg a wax quoi génn na donc mu ngi nekk en vente à Sandaga cantine à 29 chez Xabane aussi am na livraison à domicile. boo xam ne da na ay numéro noonu may ma may ma kii point boobu noonu rek parce que comme que from amuñu ay sponsor ak yooyu. foog nga publicité ko <laughs> fii nga may ma benn benn prox ndool. non non <laughs> bàyyi publicité la bon <laughs> euh, Ndiaga euh, moom soliste la. bon variété la def c'est pas du jazz du jazz rek. smooth jazz variété am na benn reggae. am na ah. mais afro afrobeat mu ngi ci aussi. afrobeat mu ngi ci waaw mu ngi suñu musique yooyu yëpp euh, jaar jaar. jaar moom mooy euh, moom mooy euh, titre. album bi waaw Ndiaga moom soliste la woon fële ca waa Ceddo Ceddo ñu ngi. Ceddo waaw ñu ngi joué ba léegi. gars yi ñu ngi ñu ngi joué waaw. aywa ñu bàyyi leen léegi ak ak Ndiaga. Mm. comme ça ñu gis Ndiaga lu muy def. Música Sénégal ca kanam ñu ngi si ànd ak fàllu Mbow fàllu Mbow Cabrel moom euh, waykat la euh, ak euh, gitaaram ànd tamit ak Cathy Garneron Cathy Garneron moom waa France la waaye dafa ñëw dëkk fii si Sénégal ay at a ngi nii fii ci Somone la dëkk ñëw tey pour jox ñu xalaatam aujourd'hui nous avons l'insigne honneur de recevoir Cathy Garneron Cathy Garneron qui est française, mais établie au Sénégal, ici à la Somone, et qui est venue nous parler de ses préoccupations, notamment concernant la danse et la propreté, les ordures. Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour. Euh, euh, Garneron, euh, coucou à Eric Garneron. Mm. Mm-hmm. Ah, tu peux pas faire autrement, non? Moi, je voulais aussi présenter mes meilleurs voeux à tous les Sénégalais, voilà. ainsi qu'à tous les résidents euh, qui sont au Sénégal. Meilleurs voeux à toi aussi. il y a combien de résidents français en Sénégal Je pense qu'il doit y avoir 2000. 2000 Oui. Et euh, la Somone, euh, a combien de Français je ne sais pas exactement. En okay. fait, ça dépend. Il y a des résidents permanents et puis après, oui. il y a les résidents qui viennent, de temps en temps. Au gré des saisons. Et ceux sont beaucoup plus nombreux Oui, ils sont oui, beaucoup. Non. Absolument. Alors, euh, Cathy, tu es au Sénégal depuis quand Définitivement 4 ans. Depuis 4 ans. Et pourquoi tu as décidé de quitter la France pour venir t'établir au Sénégal J'avais envie de changer de vie. Euh, en fait, on avait vraiment envie de changer. Nos filles étaient élevées. Ouais. Euh, elles, étaient, y en avait, elles étaient toutes les deux en fait à l'étranger. Mmh. Et on a dit pourquoi pas nous Et en fait, nous sommes venus nous installer au Sénégal parce que mes parents, mes grands-parents y étaient déjà avant quand euh, le Sénégal était français. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il y a toujours un fil conducteur quelque part. Voilà, exactement. Et vous avez tout vendu en France, vous avez décidé de venir ici. Voilà. Tout vendu. Non, nous avons quand même gardé une maison pour euh, nos enfants. Oui. Et grâce à cette maison, en fait, ça nous permet, euh, le revenu locatif nous permet de vivre. Très bien. Donc vous vivez ici des revenus locatifs de votre maison voilà. à, euh, en France. Oui, exact. Alors, euh, vous n'avez pas été trop déçu, Eric et toi, euh, la carte postale du Sénégal, est-ce que c'est pas trop différent de la réalité Si, quand même. Ben, y a des... Oui, il y a quand même des choses, bon, je veux dire, qui nous perturbent. Moi, disons déjà, en France, je fais partie d'une association qui s'appelle 30 millions d'amis. Donc ici, des fois, quand je vois bon, les animaux, c'est vrai que ça me touche beaucoup. Oui. Et... On ne s'occupe pas des animaux ici. ben, Pas de la même manière dont moi je m'en occupe en fait. Voilà. Ouais. Les chevaux par exemple, euh, on les bat euh. ben, Des fois j'interviens, je veux dire, des fois quand je vois euh, une personne, je veux dire, qui, qui frappe pour rien son cheval pour qu'il avance plus vite ou un âne, je dis mais ça sert à rien, laisse-le. C'est ouais. ton outil de travail, et puis c'est un, un, être humain pour moi. C'est pas un être humain, Kachi, il faut pas exagérer quand même. C'est un animal, c'est un être, ouais. c'est un être, euh, voilà. voilà. Mais euh, Cathy, euh, tu as quand même été euh, choqué par le niveau de, euh, je veux dire, de malpropreté ici. Oui. Ben, au début, en fait, on, on est choqué. Après, on s'habitue, on vit avec. Mais Bon, nous, euh, on essaye, on recycle, on, on, brûle, je veux dire, on fait quand même, beaucoup de choses. Mais euh, il s'est passé euh, un événement, un petit, incident vendredi qui s'est passé devant chez nous, puisque nous, on habite pratiquement en brousse. on a vu un chartier en fait, qui ramasse normalement les poubelles de tous les contribuables de, la Saumone. On l'a vu devant nous jeter ses sacs comme ça en pleine nature, dans les terrains, il y avait des herbes. Oh. Alors c'est vrai que moi, comme je me promène régulièrement en brousse, euh, à pied, mmh. j'avais remarqué qu'il y avait souvent des, des, sacs qui traînaient, qui étaient éventrés, parce que bon, c'est sûr, les animaux. Oui, bien sûr. Et là, j'ai compris pourquoi. <coughs> Alors en fait, cette personne, plutôt que d'aller euh, à la décharge qui a été faite à la Saumone, eh ben, elle, elle les met comme ça en pleine nature. Et tu as appréhendé cette personne Tu as parlé ben, Eric a, a, pris une photo, mais la personne était trop loin. Je suis rentrée en contact, mais en vain, avec la personne qui s'occupe des chartiers de la Saumone. Ouais. Euh, à chaque fois qu'il doit venir, parce que j'avais laissé les sacs devant chez nous exprès pour qu'il voie ce qui s'était passé, il a une excuse. À chaque fois, il dit Je suis en réunion. Ouais. Je suis en réunion. Bien sûr. Ouais. Voilà. C'est ça, oui, n'est-ce pas oui. Non, mais c'est, catastrophique. Tu sais, hein, même le président de la République euh, l'a déploré que mmh. le Sénégal, en ce moment, euh, c'est pas un pays propre. Et ça, ce n'est pas à notre avantage parce que, euh, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en concurrence avec le monde entier hein, en mm. termes de, de réception euh, euh, d'hôtes. Mm. Et quand un hôte vient, il ne trouve pas un endroit très propre, cela ne l'incite pas à revenir ou à recommander à des gens mm. Euh, de, de, venir vous voir. Alors le message euh, par rapport à la propreté, c'est quoi On essaye, en fait, le gouvernement essaye de mettre en place des décharges que les personnes respectent, qu'elles arrêtent, je veux dire, de jeter leurs petits verres euh, de café ou leurs petits sachets d'eau partout. Ouais. Et ce qui est très bien aussi maintenant, c'est que les sacs plastiques sont interdits. Oui, mais euh, tu sais, Cathy, oui. moi je considère que la propreté, c'est une histoire de bon sens. Oui. Je dis à mes enfants, euh, je ne veux pas voir dans cette maison quelque chose qui n'est pas à sa place. Bon, euh, tu, tu, tu, utilises un sachet d'eau, tu as bu ton eau, mais quelle est la place du sachet d'eau maintenant hmm. c'est la poubelle. Ouais. Ce n'est pas la rue, ce n'est pas machin truc. Mm. Donc, euh, pour moi, la propreté, c'est une histoire de bon sens. Euh, il faut juste euh, mettre les choses là où elles doivent être et euh, le monde est, est meilleur. Et quelqu'un qui n'est pas propre ne peut pas vivre longtemps. Mm. Non Parce que bah, tu vas être attaqué par les, les virus, les, euh, euh les germes pathogènes, etc. Et tu risques de, ça risque d'écourter ta vie. Alors, autre chose, euh, Cathy, euh, tu es initiatrice du Centre culturel métissé. Oui, j'en fais partie. C'est quoi C'est un centre, je dirais, de danse. On fait, ils font aussi de la percussion, du, de la capoeira. Et on a un entraînement, là maintenant, trois fois par semaine. On a trois heures par semaine. au son des, de la musique africaine. C'est des cours qui sont donnés par des Guinéens. Euh, c'est vraiment super, mais bon, on n'est pas nombreuses. Et c'est vrai que mon message, ça serait venez, venez nous rejoindre. On a une bonne ambiance, ça fait du bien. Et on a un échange, euh, c'est un échange magnifique parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui viennent euh, jouer. On a un jeune prof, enfin, c'est. C'est à la Saumone. C'est à la Saumone. Okay. Et pour faire partie de ce club, euh, qu'est-ce qu'il faut eh ben en fait, euh, il faut téléphoner et c'est tout, je veux dire. Euh, et adhérer, on peut y aller une fois par semaine, deux fois par semaine. C'est gratuit Non. Enfin, moi, j'y vais trois fois par semaine, donc je paye 20 000 francs par mois. Ouais. Donc je trouve que c'est quand même très raisonnable. Ouais. Ouais. Et c'est de la danse euh, africaine, de la danse moderne, de la danse C'est vraiment de la danse africaine, mais okay. ce qu'ils appellent euh, de la danse ballet, c'est-à-dire oui, qu'en fait, oui. on en, ils nous apprennent une chorégraphie. Oui. Et physiquement, bon, je veux dire, ça fait du bien, on s'entretient. Absolument. C'est super. C'est super. On apprend Et... en fait à, je dirais pas à vibrer, mais à entendre en fait le, le son, les appels. chose que je ne savais pas. J'avais jamais fait de danse avant. Hein. Oui. Donc, euh, Mais tu as l'air très emballée. Je hein. suis très emballée. Je suis vraiment très contente d'être là. Tu le fais depuis quand Ça fait bientôt trois ans que je fais ça. Ok. Et euh, c'est uniquement pour les femmes non, de temps en temps, il y a des hommes qui viennent, mais bon. Euh, Eric je... fait partie du, de la non, bande Non. Pourquoi ça Ils tiennent pas le coup, les hommes. Ah, ils tiennent on pas. Bouge, non, on bouge trop. <laughs> <laughs> les Étienne Thibault il faut les il faut les faire participer alors sëñ hmm, fàllu Mbow yow euh, yow la ñuy woowee Francis Cabrel waaw Fallou Mbow Cabrel waaw ndax lan yow Cabrel da nga kaa bëgg waaw sama idole la nag ba pare bon ma jàngi woon musique variété da ko jàng waaw dama jàngi dama jàng Cabrel yu bëri nag dans dans CD di koy déglu di koy répété benn morceau mu nga si def ay ay plus d'un mois ça dépend des morceaux. Hmm. balaa nga koy maîtriser cent pour cent moom euh, musique musique travail la. voilà moo tax nag liggéey ñu mel noonu baax parce que dañuy yëgal sa xam-xam xam-xam mooy nit. yow euh, musicien gi nga nekk yàgg na si yow. waaw yàgg na trop ñun bi ñu nekkee xale HLM 6 waagu ñaay. Sicap muy muy Derklé jëppal Liberté 5 yëpp ñu suñu fowukaay guitare la woon quoi. dañu hmm. mujjee bàyyi football ak yëpp ñun def guitare fowukaay. yow guitare la nga def euh, accompagnement accompagnement comme damay woy ak lay def mais kuy kuy woy mun naa la solol mun naa la baasal. am na ñoo mus jouer Sénégal. waaw beaucoup beaucoup bokku bokku beaucoup beaucoup j'ai fréquenté aussi tous les grands d'ici grand Thione Seck na ko yàlla tegul natoom bi nekkoon naa këram euh, yàgg na fële ñu tee 11 bu mu dëkkee en phase 13 noonu. dëkk si biir kër gi. da nga ko doon joué. bon dama doon jàng jàng man ak Noël Guèye ñoom xam nga grand Adama Faye Ndem Seck si dañuy jàngal. mais euh, mais yow euh, yan artiste nga àndal jouer produire euh, dara. bon man ay artistes yu mag yu nekk fi nag ku mel ni ay Papis Ndiaye bi ànd ak Wally. artiste bu mag la. Pap il joue très bien au clavier Papis Papis Ndiaye. c'est un grand c'est un grand claviste. l'un de ce pays. Hmm. Papis Ndiaye ay ñoom Mansour Sokhowul aussi très grand soliste El Hadj Sey bu Angleterre ñu ñëpp maa leen njëkk a yóbbu Saly dans un hôtel en 97. da nga joué ak ñoom. waaw waaw man ñoom ñëpp laa embauché woon yóbbu leen Saly. ah yaa voilà léegi yow euh, est production. bon man production yi moo jot def nag c'est des productions euh, euh, parce que bon si benn kër lañ koy defaree bon gravé ko au nombre de de de nombre par rapport à la à la commande dem distribué joué soirée anniversaire. kon Fallou Mbow amoo production distribué ko tubaab bi amoo par exemple album ñu fay non obo album nag album bi ma defa album boobu c'était c'était un album intime pour le cercle des amis intimes quoi. Ah, Fallou Mbow tam nag tous jusqu'à toute l'Europe. mais artiste nag day am album nag. waaw mais variété la ñuy def nag. parce que ah, man gis naa mën na si am album. bon moom lay moom laa bëgg a tenter nii mais xam nga musique variété. ak musique ah mais yow dootoo xale de am nga ñaaraat léegi. fii ma j'ai la quarantaine doon nekkatuma xale moom. quarante non passé nga quarantaine. waaw bien sûr moom laa la wax aux environs de ça. bon aux environs non non non sa at ñaata la. man de man xam naa ne daal maa ngi joué pële bi si Salingale biir Cap Skirring bi biir. Euh, Sombone maa ngi joué ban 1900 nga juddu. maa ngi joué ay musiciens yoo xamante ni mën nañ ma jur mais musique du affaire âge. affaire de affaire de tolluwaay am na âge yoo xam ne boo ko amee te génne goo album ba léegi mais album bi kañ lay génn. mais man gis naa ay musiciens yoo xam ne li ñu am ci musique ñiy génn album amuñu ko duñ ko am ba abadan kenn mosu leen a dégg si rajo wala nga leen télé. parce que musique de variété la def. moo tax musiciens yi duñ tekki dara nag. parce que musique de variété gars yi am kër yu baax a baax yu bakk ne ay ay du dugg avion dama ko ñëw di ci am oto yu baax di ci am teraanga y en a plein plein plein dans toutes les zones touristiques. comme kan non jarumel lim. <laughs> Ah, ñooñu lu teraanga bu nekk ci àdduna am nañ ko ci musique ci kenn du mosu leen gis télé. nga Aliou Jaber sama ah Aliou de. Aliou du cuune de. ñun variété la ñuy def. waaw mais Aliou Jaber du cuune. comme temps yi maa ngi Dakar. Ah. ma ne li mu yàlla may si xam-xam naa ko bokk ak. wa ñoom Aliou ñoom Aliou HM ñooñu musique la ñu xam si boppam. tu vois ñooñu euh, musique euh, am nañu ci lu bari parce que. tamit Ali HM kan Ali HM. Ali Jaber ci boppam liggéeyaloon na ma plusieurs fois hôtel Palme Beach

waliyu Mbàkke Kajoor waliyu waliyu aja naa la Bamba Lamine Bamba Lamine Baara bay Cheikh Coro Mbàkke Tuuba géej la nga yor te mbeel Mbàkke tamul yeeyu Kajoor patine la biro bayub Sëriñ Bachir Cheikh Coro Mbàkke bayub Sëriñ Sëriñ Mustahin bayib sëriñ sëriñ moo de baara waliyu waliyu guy minda waliyu waliyu tuuba mbakke waliyu waliyu ajana la sa baayo doon tukki ci yoonu mais euh, Fallou Mbow amoo amoo beneen bu xaw a gën a kii tuuti parce que bii tamit xaw na yolam de xam nga euh, affaire kii bi affaire musique xam nga lu tax mu compliqué léegi parce que xam nga àdduna dafa ubbeeku tey yow man su ma lay déglu ni ma lay dégloo noonu laay mën a dégloo tey Francis Cabrel bi ngay wax. noonu laay mën a dem dégloo ay américain laay mën a dem dégloo ay coréen léegi nit ki dafay def ay comparaison en permanence. soo ñëwee yow nga génnee benn bu yolom noonu man ma tey sama sama oreille may déglu man yeneen yoo xam ne ma nga feneen mais dama naan mais bu bu Fallou Mbow bi tekkiwul dara. comprendre nga moo tax tey yéen musiciens Sénégal yi dudd leen ci musique bi parce que dafa mel ni composition yi dëgërul. bon xam nga composition par exemple bii ma doon joué léegi Baye Cheikh Thioro Mbacke bi ça date presque vingt ans mais tubaab xam nañ ko ma am na sax hôtel yu may joué tubaab bi dafa méngoowul ak Baye Cheikh Thioro Mbacke mais méngoowul ak jamono Baye Cheikh Thioro Mbacke bi tey boo koy wax xam nga tey boo ñëwoon yow sa sa musique ñu war ko ñëw yóbbu ko sur l' international parce que xam nga Sénégal amul marché musique ñu war ko yóbbu sur l' international léegi ñu waroon traduire paroles yi mais paroles yi boo ko traduire waa international dañ naa yéen da ngeen di fo kii kii diw di way baayam diw moom di baayam diw moom di way maamam. c' est à dire que euh, man parewuma thème bi parce que. ah bi kay parewut non parewuma ko parce que. Ah, ma doon jox beneen bu xaw a gën a dëgër tuuti thème bi bi hmm. c' était naka la maam borom Tuubaa jure woon si géej gi nga xam te ni moom dafa julli 24 heures la def si si kaw océan bi 24 heures du benn waxtu. tisbaar ba fanaan ba ca lendemain ba tisbaar loolu moom mooy histoire bi ma doon bëgg a expliquer nii même c'était la deuxième partie xam nga. waaw léegi doon jox benn bu dëgër. boo boo xam ni parce que bu. bu yorom bi tamit ñu da ñu jox sa best nag bu ñu jox bu bu yolom ak bu ndoxee. o man ne jaay mana yàkka man jaay mana. ngay mën nañ mën ñi ak tëli tëli ba ñu mar la ba màcc la nga ne na mot boo mën ne jaay tiitër yàq mën a jaay tiitër ngay tërëf tërëf fii ak dongos dongos ba ñu ne la tasar ne la wesar nga ne gi feet na yem boo mën ne xuloo nga xuloo mbelil muy mbalañ mbalañi ak fatax fataxi ba ñu ne la toñet ne la rajax ne la ñareet ne nemm bari wax yàkk mën a coow muy mbalaj mbalaji ak mbeleleli ba ñu la jannet ne la tëjët nga ne waxeet na waxet boo mën ne nettali yow mi yàkk mën a nettali tey tararari téréerëri tararari tari téréerëri bërës ba ñu ne la narab ne la noppes nga ne kamaj ne tekk ñàkkee doyloo sa borom luñ la dénk nga dond ko di rawale ka rawante luñ la xolloo nga xolli ko luñ la sàmmuloo nga sax mi ngay toñet toñetti ak lëbëj lëbëj ba ñu ne la kitim na la karaj nga ne lëndëm ne dong bi mooy malaj malaj yi ak euh, tararari kamaj kamaj yi bon bi nag euh, bëggoon naa <laughs> bi nag moom Tunkara moom gënoon andi nag parce que malaj malaj euh, dama bind benn thème parce que le reste même ça euh, euh, le reste ça peut être terminé en poésie. malaj malaj lu muy tekki. Euh, xam nga boo mënee xeesal di diwas diwasi di ajang ajangi di ñeme ñeme fu ne nga diw lu ne nga diwoo bay rey rey fu ne nga raay lu ne nga nga maase ak a maasale looy ragal la ko maquillé ngay xollee ko di tawee ko di tubaab tubaablu ngay yawee ko di yëgale ko ràññee ko ba rës ngay soqee ko di soppali ko suqali ko ba suux ngay galax ndu ko sarax ndu ko ba nax ko ba nos. ngay futteeku ko ngay ngay xotteeku rëcceeku sotteeku mu ngeer ngay juqar bi koy dimbaliku ximaliku ba xim bu xam ngay jollekil nemeeku namantiku ba nef ngay jàllal bu ko barastiku ko ba jar ngay yuqeelu gëmmentu cëppeelu ba cang ngay wañaaru wërngalu wëndeelu ba waŋ ngay fetteeku felleeku ko ba rak ngay fulleeku wulleeku xatar bi ko bu xuuj ngay ñeme ñeme nag di ñeme ñeme ba ñam ngay melestiku di ko ba mos ngay rogantuku rogantuku ba ron di firintuku di ko ba feral ba ñu ne la jaxas ne la ñulit nga ne ñarañ na njot mandikat bi naankat bi yaa mën a tenn bouteille yaa ko mën a tenn bouteille ba tàbbi ci tenn jus yi ngay gulux guluxi ba sànku ci biir kàmbi tat ngay gux di wagu ba jaawale seen kër ak paxum kaña jëkk na dur ba ne dara naan daret ba na ducc nga mën a doxaan baa nga mën a mbaraan gëmoo dara mën a sóob te doo taw lu may ronxoñ doo wax lu may ngelaw da ngay meew di naa ba mbaaw nelaw kaaw yeewu beew fonk kew am rew soppi xew yi géew bëgg new bañ a teew ku ne nga yakal ko ci añu wàññu dëbbu ndox ku ne nga seelu ko bay ko ci toolu glace ngay xemem xemem ak dank mayonnaise ba ñu nàndale ba nàndale ba nax la nax la ci biir naaxu naqar naaxu naqar moom yàlla nañ si yàlla musal kat yi kat yi quel message euh, tu voudrais euh, faire passer. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde entier, je voudrais qu'il y ait paix sur la terre. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Comment faire pour que la paix soit une réalité Parce que tout le monde en parle, mais euh, on rien. Plus de tolérance. dans ce monde. Non. Communautarisme, exclusion mm. diabolisation, euh, visa, euh, ben, surtout quand on voit tout ce qui se passe là en ce moment, c'est vrai qu'on a un petit peu peur. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai peur pour mes enfants. Puis bon, pas, pas quand je dis mes enfants, c'est oui. les enfants du monde entier, en Bien fait. Sûr. En France, c'est vraiment je... gris en ce moment avec euh, tout ce qu'ils vivent, les attentats, la situation économique. Gens, pour euh. moi, je trouvais que les gens étaient tristes. Tu as trouvé de la, beaucoup de tristesse en France Je trouve que les gens sont tristes, se font beaucoup de soucis. Déjà, il n'y a plus de travail. Ouais. Il y a des impôts énormes. Ouais. Voilà. C'est comme disait le Premier ministre de Villepin, euh, la France, est, est, il disait je suis à la tête d'un État en faillite. Mm. Si on ajoute la faillite euh, économique euh, maintenant à la faillite même du, du moral, hein, le moral de tous les jours, mm. les Sénégalais de France doivent rentrer, c'est ça le message Il faut qu'ils rentrent Pff, Ils font quoi là-bas euh, Même les Français viennent s'établir ici. Ce que j'allais dire, oui, ils seraient mieux ici chez eux. Ils seraient mieux ici chez eux. Ouais. Néné Sané serait mieux suivi. Même si Diagne serait mieux et, suivi. Et quand on se pose la question, pourquoi il y a autant de Français qui quittent la France aussi Oui, parce que là-bas, euh, c'est gris et noir. Ouais. Donc, euh, quand c'est gris et noir. Euh... Donc, non. le message final, c'est la paix Oui, moi, je dirais la paix. En tout cas, tu vas avoir la paix ici euh, à la Somone. Hein. C'est pas mal la lagune. Euh, j'espère qu'ils ne mettent pas trop de pagaille là-bas. C'est pas trop sale. La lagune, on s'en occupe. Non, bien. la lagune, ça va. Okay. En fait, c'est plutôt euh, tout ce qui est bord de route, ça va. Okay. En fait, c'est que les, les, ordures sont mises. Euh, ouais. Moi, nous, on appelle ça la piste des charrettes. Il y a trois ans, c'était magnifique. Maintenant, ouais. elle est jonchée de, de poubelles. Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà. C'est triste. Ça, c'est ah. triste, mais bon. Oui, oui. Ça bon, va changer. Oui, oui, bon, bah, espérons-le. Enfin, espérons euh, parce que, quand même, la Saumon, euh, c'est vraiment une merveille de la nature. Hein. Hein, c'est Dieu lui-même bon qui l'a. Absolument. Fait très bon vivre. Ah, Alucis, Maricis, vraiment, ça, ce sont des. Euh, ce sont mes gens à moi les Etienne Thibault vraiment des gens qui croient à la Sommone et qui font en sorte que les choses essaient de marcher. sëriñ bi yow sa message la la loo jeexalee. man xanaa di gërëm ñi ma jàppale ñëpp zaay rek bi jeexalal benn Cabrel ñu xool. je t'aime je t'aime je t'aimerai. Mon enfant nu sur le galet, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait de faire nos repères secrets. Mais dois prier sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime, Et quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu regardes. Dans les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour commence, il en pleuvait, ni sur les galets. Le seul prétend qui te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu regardes. dans les moindres coins de l'espace, dans le monde rêve où tu t'attardes. Bon, da nga jeexale octobre ñu ñu commence, il en pleuvait. Nu sur les galets. may ñu ñaari couplet ci octobre on finit par euh, avec octobre. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur des cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous de laine. Perdu dans des foulards, tu croiseras le soir, octobre endormi, fontaine. Certainement, appuyés sur des bancs, y aura quelques hommes qui se souviennent. Et des neiges pris aux antennes. C'est offrir des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la buée des fenêtres. Vous vous jouez dehors les enfants du Nord. Octobre tiendra sa revanche. Octobre tiendra sa revanche euh, Francis Cabrel moom Fallou Mbow euh, Cabrel lañ koy woowee. Euh, ce que ce monde est sérieux ah c'est une question que Cabrel aussi pose <laughs> est-ce que ce monde est sérieux. le monde n'est pas sérieux. Est-ce que non. ce monde est sérieux. Le monde est il est avide et cupide. Ouais. Surtout ne crois pas en l'homme. Je pense que la, la, la civilisation euh, aujourd'hui humaine, euh, bon, enfin, qui est dirigée euh, de fait hein, par, la, par, par, la, culture occidentale qui domine, ce n'est pas une culture centrée sur l'homme, centrée sur l'argent, le matériel. Mmh. Et là, bon, ça, ça, les conséquences sont là. Oui. Mais bon, après, je dirais qu'il y a quand même maintenant, à aujourd'hui, euh, il y a quand même deux mondes. Hein. Euh, Il y, a le, il y, a le monde occidental, mais après, il y a le monde qui fait la guerre, qui met les bombes partout, qui utilise les femmes, les enfants comme bombes vivantes. Oui, ça, mais, ça me... mais les guerres, c'est le monde occidental, eh ouais, hein, oui. c'est eux qui font les guerres. Nous, on n'a pas les moyens de faire la guerre. Eux, la guerre en, en Iran, en, en, Irak, en Afghanistan, en Libye, tout ça, c'est les guerres occidentales. Nous, on n'a pas les moyens de faire la guerre. Les guerres mondiales, c'est qui Les bombes atomiques, c'est qui on n'a pas les moyens de faire la guerre. est-ce que ce monde est sérieux Falmo dit non. Pourquoi Non, pas être, parfait. Le monde est créé imparfait et le sera, éternellement. Yeah. Oui, mais imperfection ne veut pas dire manque de sérieux. On peut être imparfait et faire preuve de sérieux pour aller de l'avant. et le sérieux, à mon avis. Non, le monde n'est pas sérieux. Pourquoi Ah, mais dès que Wolof dit, ouais, adduna yow yaa mën a woor hmm. bu ko xam moom xaritool yàlla hmm. yàlla ma la fi andi ci ba xam fa mu lay jëmal ëllëg su moo jar a xaritool quoi Souleymane Faye nee na adduna du sa morom ba nu mu mel nga mel ko fu mu jëm nga euh, jëm fa Fallou Mbow uh-huh. est-ce que ce monde est sérieux non Kati est-ce que ce monde est sérieux non et surtout euh, sunu ay euh, techniciens ñoom ils sont très sérieux c'est pour ça que Euh, ngeen mën a seetaan émission bi ñoom am di Moustapha ñoom Mohamed Ndiaye ñoom Papi Dieng ak euh, ñoom Laye Saare sunu réalisateur euh, lay Saare réalisateur boo xam ne moom fépp lay du gauche droite son lumière vraiment il s'occupe de tout looloo tax ngeen mun ñu xool ni Ndeye Adaba sunu sunu monteuse ak yéen ñi nga xam ne yaa ngi ñi bàyyi xel ca fële ca France waa ren ñoom Wemsi Diagne ñoom Ablaye Ba. Kati Gargaroon nee na ngeen ñëw ñibbi si seen réew heure ñibbi si jot na yéen ñëpp dig dajee ëllëg bu soobee yàlla salaam.